te kenn ku ne xamoon na moom taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci wàllu développement ci réew mi ci jamono jooja nga xam ne même moom sax précurseur la ci woon ndax boobu xam ñu bari communiqué moom ñu bëgg ci profité pour dellusiwaat ci euh, ci fànn boobu am na ci thème boo xam ne dañuy wax ci nga xam ne moo aju ci jigéen ban taxawaay la war a am ak euh, ban leadership la la la la war a am ci biir islam xam nga lislaam li muy gisee leadership jigéen bokkut ak xañ na léegi li nga xam ne nan na ko ñenn ñi gisee euh, loolu aussi dinañ ci waxtaan ak yeneen thèmes yoo xam ne yu bari lay doon parce que waxtaan yu bari la am na ci waxtaan yoo xam ne dañ koy def ci ci teewaay invité ay famille yu fekk mais li ci ëpp ci waxtaan bi dañ koy def rek ñu jaar ci internet parce que adduna la ñuy waxal te adduna si également dafa am fu mu toll te loolu wax naa ko léegi en français euh, Covid bi moo am lu ñu dafa am lu ci jàng parce que aussi boo jógee ci ci choc bu toll noonu war naa am. doo ci jël loo xam ne da lay yóbbuwaat ca kanam moo tax ba fañ toll ci baree baree bari na ci ñaaram yoo xam ne waxtaan yi dafa gënoon a bari waaye lépp dañ ko jaar internet te gis nañ ne loolu moo ëpp impact bi nga xam ne ci lañ daa daje nit ñi ñëw ñoom ñu sonn ñu ñuy sonn maanaam aussi loola dañ koy wéyal ba léegi kon euh, waxtaan bi noonu lañ ko lañ ko tërale danañ ko tàmbali àllarba le le cinq juróom-ñetti fan bi nga xam ne di ko wéyal ba nga xamante ne bii ci la yaay ca bis waaw junj nañ ko waaw junj nañ ko fi léegi surtout loo xam ne aju na ci wàllu wàllu suukar si mel na ne manqué na ci manqué na ci dëkk manqué gi sax ñu bari nee nañu manqué waaye dañ ko denc loolu nag dañ ci dañ ci ñaan suñu mbokki commerçant yi nga xam ne aussi suñu ay mbokk taalibe lañu suñu ay mbokk jullit lañu ñu xam ne weer weer woo xam ne weer wu ñu ci am xaalis la weer wu la ne weer wu ñuy jàmm yàlla weer xam ne weer wu ñu yéwénal suñu diggante di weer woo xam ne weer ñu yéwénal dëgg la euh, kon nag di jullit yëpp nekkee di woor euh, aajowoo suukar ci lu bari ci ci weeru koor gi ndax weeru koor moo tuddee naa ne li ñu leen di ñaan daal moo di ñu jàppandal xam ne lépp loo xam ne mi ci seen ay loxo ba nit ñi man cee bañ cee mën a lool loolu mooy ñu leen di nañ ne autorité yi liggéey bañ cee mën a def waaye ñoom nag en tant que organisateur en tant que également famille religieuse am nañu sañ-sañu ñaan suñu mbokk jullit dañu ko bu ñu sañoon ñu yi nii mu tëdd du nii mu tëdd lépp loo xam ne waaye am na ko ci ci ak ci lu mën a doon nga denc ko ba weer wi jàll foog naa loolu mooy loolu mooy bi gën a rafet te loolu aussi mooy ñuy séntu ci ci